waaw ndaje bi moy dañoo waxtaanoon euh, dimanche bële passé ci ay jàmbat yu bari yoo xam ne chauffeur yi ñu ngi koy jàmbat dañoo sonn am problème bu rëy di ko jooy bis bu yàlla sàkk am problème ndax dañoo gis ñu fal di njiitu police bu bees ñu ne alhamdulilah chauffeur si dal leen da ngeen doon bëgg ñu xeex ngir tracasserie police am na njiit lu bees ñu génn mu gis mu def discours discours booba lam wax ni moom la ca dëkk ñëpp bëgg koo def fa mu waroon a jiite mooy xeex corruption waaye wu ko ci kon discours am boobee la mu wax du am du antu mënu ko ndax corruption suba si léegi dañ leen doon saagat laaj seen xaalis léegi dañoo dem ba léegi dañ leen di dóor yéen ñëpp yéen ngi journaliste yéen ngeen sa wër bi ñu dóor Kaolack dóor ko moom tëdd ndax lan bañ a joxe 1000 francs bu ko nangu woon kenn du ko dóor bu ko woon kenn ko dóor fépp foo xam ne dañ faa defoon ab ab poste ngir lan bu gone yi mars pour xeex ngir Ousmane Sonko poste yooyee ba mbirum Ousmane Sonko jeexee montage la léegi pour laaj sa wër seen xaalis amul ku ji chauffeur bu ci gis dëkk booy jaar fii comme gendarme amul léegi nag taxawut duñ ci kaw tali bi dañuy toog ci oto ba yow yaay ñëw wàcc ñëw jox ko wala boo rombee mu dàq la léegi kenn nekkatul ci commissariat yi te jox ma jox ma moo tax kuréel bi koo joxul léegi mu jël say pied lekk amatul yóbbu commissariat beneen bi mooy seen appareil yi nga xam ne finance da koo génne woon ñu ji fayee fay boobu mi ngi bëgg a toroxal léegi dañ ñëwoon nag dañuy essayé 6 mois waaye daar daar nañu woote waat ñu waxtaane ko ndax appareil yooyu moo duñ jëkkoon ne bu fekkee ñoom li ñu bëgg woote wuñu waxtaan jubawuñu dañ leen tegal préavis danañ taxawal oto yi Sénégal gépp dana